mbokk yi daleen ak jàmm ñu tàmbali xibaar yi ci lii di euh, Go News. ñu dooree ko ak Ashura lan lay eh, tekki ak it lan lañ ci war a mën a xam Ashura nag mu ngay firnde rek ndorteelu atub eh, jullit ñi eh, wuuteem nag rek bokk na ci li nga xamante ne ni mu ngay firndeel ci fukkeelu fan wi wuute lool nag ak li nga xamante ne ni moom mooy yeneen calendrier lu ci mel ni calendrier grégorien bi bés bu njëkk nag ci at mi du benn ak bés bu njëkk ci atum jullit yi atum jullit yi nag nag bés bu njëkk ba boo koy seet rek yaa ngi koy xaar ci fukkeelu fan wa euh, ci fukkeelu fan wa ci weer bi moom mooy at bés bu njëkk ci atum jullit ñi naka noonu nag loolee tax rek mu am wuute li nga xamante ne ni moom mooy ak yeneen calendrier ba tax na nag euh, mu jur ab polémique ndax nag ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy wax chiite yi te it euh, boo leen di xayma rek téeméer boo jël ñu cee mat euh, fukk ci communauté musulmane ci àddina bi boo koy xayma mi ngi toll si ñaar téeméeri million wu doomu aadama ñoom nag li nga xamante ni rek mooy Ashura la muy nag firnde du rek bésub mbégte ndax nag wuute lool nag ak bésub mbégte sécurité ndax nag jàpp nañ ni ci bés boobee la njabootu yonent yi daal amoon ay jafe-jafe yu metti ba tax na rek ñoom saa su lii di bisub Ashura daal di jotee rek dañuy daal di jël ay yar nag di ko dóor si seen yaram di eh, mën a fàttali rek li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ni eh, famille yonent yi jot nañ ka dundu réew mi nag di Iran ak réew mi ñu wax Azerbaïdjan ñoom nag bokk na ci réew yi nga xamante ne ni ñii di chiiti ñu ëpp eh, fu ñu nekk festival ñu koy wax sax nag drôle de festival mu nga amoon fukki fan nag ñett jàpp fukki fan nag ñeent weeru juillet fële ca Foundiougne festival bi nag ñu ngi ko tuddee festival de du cousinage à plaisanterie maanaam daal kaf ak foo bi nga xamante ni rek ñu ngi koy gis ci diggante xeet yi thème bi nga xamante ni nag moom la ñu yëkkati ci bile édition nag maanaam paix et cohésion sociale jàmm rek ju dox digganteeg xeet yi naka noonu nag ci biir bile festival ñu amaloon amaloon fa ab forum daal di koy nag taxaw rek ci solos linga nga xamante ni moom mooy euh, saafonte génération yi nga xamante ne ni euh, wuute na waaye tamit mën a rek bokk euh, ci linga nga xamante ne ni dafay sàmm rek lii di patrimoine culturel ñu mën a jàpp ne rek bi le festival nag bi moo yoonam bu njëkk bu ñu officialisé wante nag daan na rek am ci at yu ñu weesu ñàkk déggoo fële ca SODAV Ngoné Ndour nag daal am ab tàmbali rek bu yombul ci li nga xamante ne ni moom mooy ñetteelu mandaam bi mu am niki benn fan ci weeru juillet ci nag bopp lii di soda di société sénégalaise de gestion du droit d'auteur et des voisins moom nag daal dinañ koy tabaat niki ñetti at Ngone Ndour nag la mu xamle woon rek mooy dafa bëggoon woyal maanaam liggéey ba mu tàmbali woon ci at yu wees yi naka noonu nag ci 16 euh, juillet maanaam fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet bi ñu nekk daal nay nag euh, waxtaan ca fële ca quotidien bi di l'observateur la mu xam ne nag ci bile waxtaan daal di nay nag euh, leeral nit ñi rek ne musul nag jot benn yoon li nga xamante ne rek la ñuy wax ay indemnité wala sax nag ay jeton de présence naka noonu nag ba mu toggee ci euh, troisième mandat ba léegi ni jotul benn yoon lii di ay indemnité ñu mën a jàpp ni rek mbir maa ngay woy xiiroo yeeg ngaayoo yi daañu nag topp topp ci yeneeni xibaar ñu dem ca bitim réew dooree ko ak réew mi di Rwanda ñu mën a jàpp ni rek amuñu benn mbetteel ndax kii di Paul Kagame daal di nañ koy rek tabaat ci bopp réew ma moom nag mu am lu toll ci euh, quatre vingt dix pour cent ci ay euh, votant maanaam rek ñu ko jox seen nopp carte feddaliwaat ko seen kolere naka noonu nag ñu mën a jàpp ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo doon kujjeek moom nag euh, amuñu naam noonu benn benn doole benn taxawaay ci yile élection naka noonu nag ñu mën a jàpp rek ñaar ci ay opposants ñoo ci xawoon euh, takku te it boo leen dajale boole leen la ñu am téeméer boo jël matul sax euh, benn ci yile élection ñu wees moom nag euh, kii di njiital réew ma Paul Kagame mandaam bu bees bi nag mu ngi fas yéene toog lu toll si juróomi at ci kanam naka noonu rek ci ni ñu nga xamante ni daan nañ ko tëggee seen constitution fële ca Rwanda mën na ko may rek mu toogaat bopp réew ma fii ba atum 2034 ñu daal di jeexale ak Donald Trump mi nga xam ne nag partem bi daal di na koy tabb niki fukki fan ak juróom fële ca Milwaukee comme nañu ko fas yéene woon moom nag dina rek daal di teewal parti républicain bi ci élection présidentielle yi ñu jib nag fële ca États-Unis ginnaaw nag bi nga xamee ni rek dafa amoon li nga xamante ne ni rek moom mooy tentative d'assassinat bu rek daal di antuwul nag moom mi di Donald Trump ginnaaw boobu ba léegi nag dafa rek daal di féetewe kaw ca yile sondage ñu mën a wax ni rek moom mi nga xamante ni Donald Trump mu ngi ci kanamu ki nga xamante ne ni moom mooy Joe Biden di njiitum réew ma fa toog jamono ji moom nag nag ba tey it ca soirée rek bu jafe-jafe ba mu amoon rek moom mi di Donald Trump mujj na nag daal koy fësalaat mu yéegaat ci kanamu li nga xamante moom mooy raw kaddu ga fii ñuy wax ak yéen mu mel ni nag bile rek euh, incident bi amoon foofee rek tax na ba kandi ba li nga xamante ni moom mooy électeurs yi rek daal di koy joxaat euh, bopp mu mën a jàpp ni rek moom mi di Donald Trump bu ñu moyul tuuti rek daana wëyal jubali fa nga xamante ne ni moom mooy ca Maison Blanche mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox di daje suba incha allah